nee na digganteem ak capital ba ñeent fukki farsax la gannaaw capital yaman mu di sanaa amul dëkk bu ko gën a màgg ci yaman amul bu ko gën a rëy amul bu ko gën a riis tamit kon mooy mooy dëkk ci yaman rek hmm. moom la tuddee maqaam bi axbara na al xaaris ubnu hammaam xaaris doomu hammaam hmm. قال مي لما جبت بما دغ البيدا علي علي بينغايا مي علي رك الى زبيد دم زبيد صاحبني عندنا من غلام ابجام نم يوي غلام فك سن جام لا نتي نم قد كنت نكو نار بيته ديكو يار الى ان بلغ جم بم جوت اشده كتنم nee na mooy fukki at juróom ba ñeen fukk diggante boobu la ñuy wax ne balaga ashuddahu ñeen fukk nee nañ fa ndaw xem fa lay góor di nekkee góor dëgg hmm. xelam mat kàttanam mat hmm. ñeen fukki hmm. moo tax fa la yàlla di yónnee ab yonent bu mu doon bu amee quarante moo tax doon mag tamit dara la bu doon doon mag du dara yàlla yàlla du xaar ba yonent yi am quarante ans mu doo leen yónni ndaw yàlla man na ko may lu bëri mais xelam ndaw dafay nekk ci moom léeg-léeg mu def yëfu xale fekk xel mi moo mat a gudd ah moo tax loolu yàlla mën a may rek amal kilif waaye soo demee bay yëg ne kenn yërifutul rek yaa ngi yàqu ndax ndaw ndaw rek la ndaw moom ndaw rek lay firi ni nga xamee ne sa doole yaram des na sa doole xel noonu la desee ah. doole xel nag xam-xam du Mm-hmm. yàlla mën na laa may xam-xam waaye sa xel des sa expérience des ci wàllu àdduna mm-hmm. su boobaa li nga war a def mooy déglu mag ñi mm-hmm. ñu naan la nii la du nii jaaral fii jaar fële dafa am loo xam ne kenn bindu ko ci téere expérience moo koy maye sama papa mos naa wax ma ko laaj mu ma am na loo xam ne yegg xam la foo loolu la ma tontu mu ne ma am na loo xam ne yegg xam la ma daal di am na loo xam ne nit mënu la koo waxal boo ko dund doo ko xam kon nag bu la kilifa waxee defal rek. wala wala yàlla balaa yónni yónni dina am 40 ans. dégg nga <coughs> mu ne moom moo yar xale bi ba xale bi dëgër. Mm-hmm. wa saqaftuhu ma jubbantiku maanaam ma yar ko. Mm-hmm. hatta akmala ba mat. Mm-hmm. rushdahu ak ñoram. ku ñor mooy ku dem ba xàmmee xam li mu war a def ak lu mu warul def mm-hmm. nee maa yar xale bi jubbanti ba mu nekk ku ñor mm-hmm. ku xew ku baax daal mm-hmm. <coughs> waxat kaana nekkoon na xat anisa doon wéttali ko bi axlaaqi si samay jikko wa xabara mu xam majaali ba wifaaqi bi sama dëppoo mu ne xale boobu samay jikko la yoroon xam li ma bëgg maa ko yar moo tax xam na li ma bëgg falam yekku nekkutoon yeta xattaa di mooy wala di jéggi maraami samay sàkku samay sàkku li may sàkku xale bi du ko jéggi maanaam li ma jublu rek foofu lay jub du ma jublu fii mu jublu fële wala yoxtiw du mooy fil maraami ca njum ya maraami mooy lañu ñuy xale bi fi mu war a sànni rek lay sànni maanaam fi ma bëgg mu jaar fa lay jaar li ma bëgg mu def lay def ah mu ne laa jarama nag mhm. eh, amul benn pexe mhm. wala laa jarama ca dëgg-dëgg mhm. an na qur ne ja jëfam yu baax ya il taata taq na bi safari sama xol xale bi ba mu mel ni amatuma pexe ndax jëfam yu baax yi mujj na taq sama xol wa axlastuhu ma jagoo ko mm. li xadari ci sama teew mm. wa safari ak sama tukki mm. xale bi bu may tukki maa ngi ànd ak moom bu ma tukki tukkiwul maa ngi ànd ak moom <laughs> ndax damaa dem ba bëgg ko fa alwaa mu mu daal di alak bii ci moom addahru jamono al mubiiru bi aji alake bi aji alage jamono ji nga xam ni mooy alak ku ko neex wala ku yàlla dogal ma alak parce que jamono mënul dara yàlla rek def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahru xadis bu yéemee ngi noonu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir waxam yi da nga ci am wax yoo xam ne da ngay xam ne lii waxi suufiyanke rek la maanaam yonent bi lépp dana wax dana jàngale fiq waaye amul woon matière bu ñu tuddee fiq dana dana danaan jàngale naxu parce que waxam mooy dëppoog naxu amul matière bu ñu tuddee naxu danaan jàngale balaaxa amul matière bu ñu tuddee balaaxa dalaan jàngale tasawuf amul woon matière bu ñuy tuddee tasawuf yonent bi lépp la ëmb. gannaawam nag nit ñi ñoo séddale la nekkoon ci yonent bi nga mel ni école boo xam ne da nga fekk naxu luxa sarf hadis siira musala hadis waaye dañuy jàngale rek tuddewuñ benn matière ñi jàng nag génn kii dem moom ber di jàngale naxu kese kii ber di jàngale luxa kese di ber di jàngale sarfu kese noonu la xeet yu met gannaaw yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi ndax kenn attanul dajale li yonentu dajale woon yëpp mm-hmm. su ko defee nag mm-hmm. moo tax mu ne bu leen ŋàññi ndax yàlla mooy jamono maanaam yàlla li xew ci jamono yàllaa ko def kat waaye jamono defu mm-hmm. tax mu yàlla mooy jamono xew ci jamono yàlla moo ko def waaye jamono defu ko <laughs> eh, lu yéemee ngi noonu nag li ci yéeme mooy mun na wax ne bu leen ngàññi diw parce que yàlla moom mooy diw te pourtant diw moom li muy def yàlla ko dogal rek jeex na rek yàlla dogalee li nekk jamono li nit ñi def yàlla ko yàlla ko dogal moo tax bi am na xur woo xam ne ni ku yàlla may tawfiq moo ko mën a xam ndax kat dogal li nekk ci nit kat taxu ñu ne yàlla mooy loolu yàlla moom kenn du wax ne mooy mindeef te daxaru moom mindeef la yàlla moom moo waxal boppam yonentu moo waxal boppam yàllaay jamono Mm. te jamono mi def yonentoo ko wax de kenn woo ko lu tax mu wax ko nag moom xam na ko bu ñun nañ ca mën a defee mooy taawil nañ ko taawile mooy yàllaa dogal li nekk ci biir jamono waaye li nit def yëpp yàllaa ko dogal fi amul lu yàlla dogalul mm-hmm. fekkee kenn ku nekk li nga def yàllaa ko dogal yàllaay lool mm-hmm. yàllaay lépp de mm-hmm. hmm? dégg su ko defee mu ne ji alak daal di ko alak jamono alagut <coughs> yàlla lay alak yàlla yàlla may dégg ñu ne damat naa jamono bam ñu tàppee zabidun zabit maanaam jamono bam ñu dajalee bañ demee ba yegg zabit ci ko wala macha allah ba mu yëkkati ko naamatuhu xol tànkam naamatu mooy biir tànk yi nit bu dee day yëkkati ko daal di samp ñu ne chaalat na amatuhu danañ koy lépp ñu ne chaalat na amatul qawmi mooy tàqalikoo jaar fi kii jaar fële seen teraanga ga ñaamoon ak seen kàttan yëpp daal di dem chaala chaalat na amatul qawmi danañ firi naamatu mooy xol tànk biir tànk bi mu nit ki dee loolu day ko mm-hmm. wala macha ba mu yëkkati ko naamatu seen biir tànk mm-hmm. wa shakk naamatu biir tànkam ba xale bi dee hmm. wa sakkanat mu daal di dal hmm. naamatu ak yëkkatikoom hmm. ak yëngatikoom laay ak yëngatoom laay naamatu ak yëngatoom mooy yëngatu gi nga xam ne ci lay màgg xale bi di màgge nee na naamatu si cosaan nag mooy kàddu gaynde baqiitu des naa aman at laa usiixu duma wann taaman ñam wala uriixu bëgguma xulaaman beneen xale ba xale bi dee toog moo xam ne mënumaa lekk soxlaatuma beneen xale ndax léeg bëgg nit bëgg nit bëgg nit ci moom ba ko ñàkk doo bëgg keneen nit kooku nekkoon ci moom yàlla rek ko ci def amaana yàlla defaat ko ci keneen xoolal rek boo boo ko yàlla doo ñàkk dara waaye boo wettali ko nit da nga bëri waaw gars wax ne la jëlal sa mbir nga teg ko ci benn hadaf bu ko teg ci ay ab jubluwaay bu ko teg ci ay nit wala ci barab bu dee yow say yow leen intéresse mooy ay nit rek bis wala ñàkkee da ngay fuuti doo amati yitte sa lépp dafay taxaw parce que nit ñooñu nga soxla woon amatoo leen bu fekkee dafa am foo jëm nag ku demit nga jëm foofu rek ndax fa nga jëm moom ba léegi mu fa hmm. koo ci mën a ànd ak baax na hmm. barab boo ko mën a defee baax na hmm. yow loolu intéresse wu la na nga yegg fi nga bëgg a yegg yow tamit jëlal yàlla nga teg sa kanam def ko muy sa wéttal bi gën a mag te moom rek kat mooy wéttal de lépp luy taar yàllaa ko xabal dara ci taaram yi loolu loolu lu yéeme nag waaw xam nga ne lu baax lu ne ñu ne melo yàlla la waaw lu bon nag suñuy melo hmm. xam-xam melo lan la yàlla qul innamal ilmu indallah nguur melo lan la yàlla hmm. melo yàlla yi nag yàlla na ko yabal mbindee fi te te melo du tàqalikoog jëmm hmm. du yéem a ngi noonu melo du tàqalikoog jëmm de waaye melo yàlla yi moo feeñ ci lépp lu baax وسيان رحمتي كل شيء رحمة الله ملون لا رحمة غفين نشيره تمر الوتاقل قول جمول وريد غاغن تكوشي يوم بود يعني إن شاء الله غاغن حتى الجادني بمويت ما شوائب الوحدة وي جخصوي ويت ولا بوغ نخ نخي ويت wa mataayibul qawma ak coonaay jug mm-hmm. wal qaada ak toog mm-hmm. ilaa an ataada jëm ba ma weccee xanit mm-hmm. duri ci wurusu dur ba alxarasa ngës ma maanaam per wala pettaaw mu ne dem naa daal ba nga xam ne nii nax-naxi weet mooy jafe-jafe wéetaay ak coonaay juga ko toog parce que lépp maa ko defar sama bopp léegi ndax amatuma xale tax na daal maanaam placé xale boobu keneen mu bëgg a dem remplacer ko keneen. xale bi comme waru sudur ku dul moom comme per rek. waartaa dama daal di sàkku. man ka nga ne foofu moom sadaadun wala sidaadun bit eh, kubéer la. min awasin coona. Mm-hmm. dégg nga ma ne daal ma bëgg naa dem sàkk koo xam ne daal dina ma fegal sama coono yi fa xasatu ma jublu man ka nga xam ne ye bi mu dana jaay ana biida jaame bi suuqi zabidin ci marché zabid fa qultu ma ne uridu bëgg naa xulaaman xale yoon ji bu dana yéemuloo ci taar ida xulli ba nem jàllar bi lañ ko maanaam boo ko gëstoo daf lay neex wa yoxmadu danañ ko sant ida jurri ba ndem natteef lañ ko boo ko nattoo xool ay mbiram da nga koy gërëm wala yëkkun na nekk moom xale boobu mi man di bokk ci xale yi nga xam ne xarrajahu génne na ko alakiyaasu borom xelya ya mu génne ko ilaa suuqi iflaas yi jëm ci marché yi dégg nga ak ñàkk dégg waa waa xarajo mu génn ko ila suuq jëm sa marché ba aliflaasu ak ñàkk mu ne xale boo xam ni nag ki ko moom ko am xel la li tax mi koy jaay mooy ñàkk rek jafe-jafe jamono waaye bu doon jafe-jafe jamono du ko jaay xam nga loolu dana yomb te baax waaye xale boo xam ne borom bëgg ko moo tax mu koy jaay ko jëndee na la cee naqari moo tax ma boo xam ne ak rajo génn na ko si marché al iflaas ñàkk borom daa am ci koy yooyu ñaare lu baax lay doon mu ne dem na ci jaaykat yi daal wax leen loolu faxtasa mu daal di kontaan kullun képp minum ci ñoom li mat la bi ñeel sama sàkkuteef wala faxtasa mu yëngatu rek wa wasaba tam tëb wa badala mu yulli taxsiilahoo amal ko an kasabin ci lu jege kenn ku nekk ne moom balaa yàgg li nga am dana li nga bëgg dana jàppane balaa yàgg danañu andi li nga bëgg waaye xam nga nit ñi boo wéetee dara ci ñoom du a faju moo tax lu nekk fajal ko sa bopp moo tax mu ne su ma daara topp mu wëndeelu an ahillatu weer ya dawraha seen ak wëndeelu dama ko dikk rek wa taqallabat mu dal di jàllarbiku dégg nga kawraha ak matam wa xawraha ak wàññeekom weer yi di mataka wàññeeku fukki fan faneeri fan maanaam weer di dee rek wa ma najasa wayut min wuxuudim seen dëhal ya waadun benn dëhal wala saxa dégg nga sebut laxaa ñeel ko raadun benn dënd dënd bi sebut mooy tawut ñu ngay dënd waaye soquñ benn ndox manaam weer yaa ngi dee benn dige gu goo xam ne ni borom wéyal na ko bu doon la nga mu ngi dënd rek waaye benn ndox toqut maanaam kenn matalul daal la ma waxoon fala maa raaytu bu ma gisee an na xaasiina mer langue mooy ki nga xam ne nii mooy dox diggante client bi ak kiy jaay te moom jaayut loolu mooy mer ba ma leen gisee mm-hmm. naa siina ñëwee fàtte mm-hmm. aw muta naa siina wala ñuy fàtte fàttelu mm-hmm. alimtu xam naa an ne lii mbir te mbir lay sa nekkut kullu man xalaqa képp ku diir dara yafri dana dag biñ laan laan ñaas gërëm dañ naan diir xool fan la ñuy lan la ñuy dagg dégg léegi nag arab jël ci lépp ne <coughs> nekkul ne képp ku diir dara rek da ko dagg maanaam nekkul ne ku digge da nga def mm-hmm. kon xalaqa ci cosaan mooy nattale na rek mm-hmm. loolu lay nekkul ne ku digge dana dag waan liy mbir ti mbir lan du xokk jildi sama der mislu zufri lu mel ni sama we xam nga yow ni nga mën a xasanale sa bopp kenn mënu la ko xasanale parce que fii xasan yaa ko gën a xam keneen kon ni nga mën a fajee se aajo bopp kenn mënu koo fajee sa aajo moo tax imaam Shaafi waxoon moom la bayti boobu la andi si suuf ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك ما حك أكت جلدك صدر بي مثل ظفرك لميل سويه سوي نملا منا قصنا لي درمون لكو قصنا لي كون فتولى نغم مينغو أنت يا جميع أمرك سمبولن بي سمبريب تيالكو سبب داخل لينشي منا سبب كنن منا لكو Hmm. xanaa loo mënut téye hmm. waaye loo mën a taxawul sa bopp bu ko bàyyee keneen hmm. demal taxawal ko sa bopp woy laa ñu yàqu ko léegi mu ne booy jublu nit pour am aajo ci moom na nga dem ci ku xam yaay kan waaw bu xamul yaay kan xamul yaay kan rek <laughs> mën na laa mën na mën na laa bañ jox sa gëdd waaye booy sàkki aajo demal ci ku xam yaay kan bu ko defee nag mu ne dem na ba xam ne moom moo mën a jug lijjantil boppam jaam bi mu sotti waaye bu ko bàyyee nit ñi du gaaw sotti mu ne farafattu ma daal di ba mazhaba tafwid yi ngiram jooyal bàyyee nit ñi mbir mi naan doxal leen mu ne banaa lool ba barastu ma génn nag ila suuqi jëm ci marché ba bi suufri ci dinaar ya wal bii di ak dërëm ya zone ya mooy dinaar ya yu weex ya mooy xaalis fa inni naka man la astaaridu maa ngi gaarlu alxilmaana xale ya maa ngi dem di laajte jaami di xool kenn par kenn wa astaarifu may sàkkoo xam lu al asmaana njëg ya istisancé rek enra dini ci la ma galangu ci la ma gaarlu maanaam ci la taxaw sama kanam rajulun góor goo xam ne ni xadix tatama muuroona bi lisaamin ci masque xale bu takk masque daal waaju takk masque hmm. change ba gis waaju dafa takk masque hmm. xatamahu mooy def na ko ci bakkan bi mooy def na masque bi ci bakkan nga ne doo doo ko mën a xàmmee bu baax hmm. wa qabada téena ala zandi xulaamin ci tenqëb ab xale ma nga téye ci loxo ab ab xale di ko jaay wa qaala góor gaa ngi naan من اشتري مني غلاما صنعا في خلقه وخلقه قد برعا تي أبو زيد أكمل وي yàlla na yàlla delloo si ñii ci xeet bi ñii daal ñoo ñaman njëriñ ñii man estari kuy jënd min nii ci man xulaaman xale boo xam ne sanaa xarañ na ci liggéey waaye xat baraa raw na keneen fii xalqihi ci mbindam wa xulqihi ak jikko xale boo xam ne ni ko yàlla bindee moo gën a taaru ñëpp jikko ju mu yore moo ci raw ñëpp mm. waaye liggéey moo ci gën a xereñ ñëpp mm. muttalihan xale bi aj buur mm. mooy guy jugu-jug ak doole bi kulli ma nutta ci lépp loo xam ne aj nga ko bii ci moom yashfiika dana la saafara in qaala boo waxee wa in qulta boo waxee waa mokkal na ko xale la boo xam ne nii loo ko sant mu jug ceeg doole def ko ni nga ko bëggee su waxee nga kontaan boo waxee mu dégg li nga wax te def ko wa in tusibka bu la jotee asaratun fakastal yaqulu na wax laa masta massa ndeysaan xale bi boo fakkastalee mu ñaanal la yàlla nga mucc mm-hmm. waaye du nekk foofu di ree wa in tasumhu Boko ko toggee hmm. asaa dox fi naari si safara saa mu dox hmm. xale la boo xam ne ko doxal si safara sax mu dox hmm. nit ñi nag lii lañ bëgg nit ñi ànd ak ñoom te ñoom nanguñoo ànd ak yàlla nii bàyyi nga xam ne ma la bëgg gis nga nit lim bëgg mooy ku ko bëgg ci lu benn intérêt ki la bëgg ngir intérêt ki la bëgg sans intérêt moo la ko gënal bu la wóoree ne bëgg maanaam waa ji bu ko wóoree na ko waa bëgg na ko hmm. waaye nag bëggu mbaa mu bakk xolam du sedd ci moom de hmm. danaan kii daal bëgguma hmm. bula la wóoree ne boo ñàkkee mu bala dula neex de waaye koo xam ne wóor na ne boo taxoon gumba lafañ ngaana keroog la gën a bëgg keroog la la gën a toppatoo kooku sa biir xol nga koy def waaw ñun nag lu tax ñuy bëgg yàlla ngir intérêt ngir aljana ak ragal sawara jaaduwut kat oh. jaaduwut kat waaw hmm. ah, waaye jàlloon li laay may kërxuna laaya jooy dafa dajale lu bëri hmm. am na yoo xam ne lañ sib lañu defal yàlla li hmm. nga xam ne bëggoo ko def bu def sa diggante sa borom yow yàlla la gën te yow loolu xellu si xaq lu tax muy xell ci xaq yàlla waaye jàlloon li laay may kërxuna yaa ngi Cheikh Tidiane dafa nettali benn xale pour jàngal la ni nga war a bëggee yàlla buur bi dafa nekk xale bi bëgg xale bi lool mag ñi jaaxle lu tax buur bi fonkee nii xale bi ñoom faalewul leen wala daal fonkeewul leen ni mu fonkee xale mu invité leen ñoom ñëpp benn bis pour jàngal leen jël wurusu foor wu seer lool oo xam ne xaalis bu bëri ci nekk maanaam alal ju la jox ko mag ñi kum jox ne ko tojal dama ko déet li kay sëñ bi toj ko yàq la buur nañ ko bani ali ke yen du ko toj kum dem rek nga ne ko duñ ko toj ñëpp ne ko daal lii kenn waru ko toj bu ko defee mu ñëw ci xale ba ba mu ñëwee ci xale bi ne ko tojal xale bi toj mu gëdd ko lu tax nga toj wurus bi xale bi ne ko maa ngi jégalu maa ngi tuub daal di torox mu ne waa kay lii moo tax ma gën ko bëgg ci yéen yéen ba ma leen sante da ngeen a gànt te su ngeen ko tojoon ma yedd leen nga ne yaa ko santaane waaye xale bi dama koo sant mu daal di def dégg nga dama ko sant mu daal di def mm-hmm. ma yedd ko mu daal di jégalu jaam nii la war a mel bu la yàlla santee nga def mm-hmm. bu la yeddee nga tuub ana ay moo ko dogal ak moo ko nangam ak ay nangam ak nangam di jéema lay xalkaan rek la dikke mm-hmm. yàlla du ku ñuy critique moom bu la santee defal bu la yeddee tuubal mm-hmm. noonu lañ ko war a bëggee xale bi noonu la mel boo ko sàkkoo ne ko doxal safara sax mu dox wayntu saahibu bu àndeek moom wala yow benn bis la raha mu sàmm àndaale wen tu xannexu boo ko doylu loo bi zilfin ci we xanexa mm. mu doylu xam nga ak we dafa nekk lu tuuti lay doon di nekk ci diggante we yi mm-hmm. bëriwut mm-hmm. maanaam boo ko joxee lu tuuti sax mu gërëm mm-hmm. ah léegi dëgg nii la jaam war a mel ak la jaam war a mel ak sangam boobu moom alal kay si ànd ak ñaw alladi gi nga xam ne xat jamaa dajal na ko maa faaxa musu tudd xat mukk mm-hmm. kaasiban di aji nar mm-hmm. wala daa musut dégg nga xoote mm-hmm. ak nar maanaam wala daa tamit musut nar loo keneen musut xootel keneen nar musut xootel boo xam nar xale bi ànd ak xelam mu rëy mu yore yëpp musut wax lu dul dëgg mosul askanee ci Muhammad lu xamut mm. waaye mosul askanal keneen lu xamut wala daa mën naa jël ñaari maanaa yëpp mm. ma daa li nafsi mm. shay'an laysa lahu wala daa ala ghayri shay'an laysa alayhi ku wax dara rek looloo nekk ci yow lu mu askanee Muhammad looloo nekk ci moom waaye du def lu lool wala ajaaba wuyuwut mat maan xemam téef yi na daa jamono ba mu wootee maanaam ba xemam téef gu wootee wasta jaasa daganalut nasta sirrin génne mboot goo xam ne udiyaa dénk lañ ko ko xale boobu xale la woo xam ne xemam tiifi àddina yi buy xëcc nit ñi di leen xoo ci boppam moom du ko wuyu daal mënoo koo xoy xaalis ba yàq ko jigéen mënu koo yàq mm. taari àddina mënu koo yàq mm. yàlla rek maanaam moom li ko sangam bi sant lay def kon hmm. waaye nga dénk ko mbóot mu génne ko hmm. xale bi loolu dafa xaraam ci moom hmm. mboot moo ko dénk mu denc xale bi kon xale bu baax la nga jikko yi ma lay wax yëpp noonu la jaam war a mel digganteem ak yàlla it wala nu ko raw ndax wallazina amanu ashaddu xubban lillah xaq bi nit jox nit rek xaq bu ko raw yàlla yelloo na ko ndax yàlla gën a foo nit ko yàlla it bu la dénkee mbooti xam yàlla nga génne ko ci bitti mu rekki la rek te dootu la dénkanti mboot mukk man saararuhu fa afsha sirra mutamidan lam yamanuhu ala al asraari wax bu ragloo nga buñ teg yow nga si siwal mboot ma te yaa ko tey dootuñ la wóolooti ci mboot yi fekk yaa ngi dund maanaam beneen mi di nii yow moom tëj nañ sa rëbb ne loolu dafa garaaw loolu sax dañ lay bàyyi ñaari weer sax commencé laa joxaat waaye bay laa yemi diin loolu rek ki ko dappel la moo tax loo man ci denc mbóot denc ko taalama abdaa yàgg naa fent fii ma sanaa ci lam liggéey abdaa mooy mu créé loo xam ne kenn mësu ko créé wa faaqa yàgg naa kawe fi nasri ci wisar wa fi nazmi ak ci way maan mboolem seen xale boobu su wayee nga kontaan su bindee wisar it nga yéemu moo raw ñëpp wallahi maa ngi gën ci yàlla law laa dan ko ay chin su dul dund sadaa goo xam ne ni xotti na samay mbir maanaam sonal na ma mm. wala sadaa xotti na sama xol mm. wa sibyatun ak ay waxambaane yoo xam ak ay xale yoo xam ne adaxaw xëy nañ hmm. xuraatan di way rafle hmm. juwaa di way xiif maa biatuhu duma ko jaay bi mulki kisra ci nguur ak kisra ajmaa mboolem seen hmm. mu ne wallaahi suru woon dund bu xat boo xam ne mu ngi xar sama xol ak ay xale yoo xam ne ñu nga xëy rafle xiif lool xamuñ luñ lekk wallaahi boo ma joxoon nguur ak kisra it jaay xale bi ah xaalis lam bëggoon am na ko kat te xale bi moo raw xalem bi gaañ xam nga ne kii kon ñàkk tax mu indi ko ci marché bi waaye waxut dëgg Abu rek la <laughs> moom pexe ci la nekk moo tax xaalis dafa jógee ci naqar ñëw daanu ci naqar rek <laughs> jëfi Abu Zayd rek la mm. lii moo tax ñu ne borom xam-xam bu dëng baaxut mm. gis nga jaahil bu dëng comme nax yow la neex mm. ndax dafay gàccewu saa su nekk suuba ak ngoon guddi ak bëccëg bu waxee rek ku jàngul sax danga xam ne kii xamul dara waxuma laa ku waaye li gën a bon mooy boroom xam-xam bu dëng kooku comprendre ko du yomb ndax lu mu wax dana ko jéem a lay ba sa xel ne ah ay dafa mel ni noonu la de fekk waxu dëgg de moom sax xam na ne waxu dëgg waaye dafa bëri xam-xam rek gaa yi ne leen boo jàngee te yaroo bandi rek boo jàngalee nit ba ba mu ne xat ci xam-xam hmm. yaroo ko formé nga bandi lu ne dana ko jéem a lay lu ne hmm. saay saay gu ne dana ci dugg bëgg koo rafetal hmm. bandi la daal dafa xam yoonu naxat waaye bu fekkee dangay jàng <coughs> da yaru te jàngoo mbaam nga foo dem ñu jëriñoo la te doo jëriñ sa bopp kon boole ñaari قال من فلما تأملت بما ستنتلي خلقه من دم القويم بأجي جب وحسنه أتارم السميم بأجي سل خلته لا كن جرت من قلبه من ولدان جنة نعيم وقش دوام الجنة خير حارس نعم مقول قلب جسم ينب بن مرفت تار بسات مناكي كي الجنة لجيه تيجي قلب الجنة لبوك wa ma ne maa haza déet ki basharan di mindeef in haza déet kii illaa malakun lu mooy muy malaaka karim bu ma ne ah kii ki am malaaka la la jigéen ñi zare xaay waxoon ci Yuusuf yàlla mën a maye yàlla bind na benn nit may ko taar boo xam ne ba ko nit ñi dañ ne kii du malaaka la yàlla yàlla mën a maye waaye nag taaru nu wutu rek la doonu woon taaru jëm nu wutu gi si Yuusufa loolu lañ gis ci kanamam mu noot leen ah, loolu taaru taaru yàlla la mu ne xale bii loolu laa wax ci moom su ma stantaqtuhu ma tudd loo ko an ci turam malaaj laaj bi noo tudd mhm. laa li raxbatin du xemam fi almi ci xam ci xam ci xam-xamam de mhm. nekk ma ne ma laaj ko noo tudd mhm. laa li raxbatin nekkul pour xemam fi almi ci xam turam بل في نك لانظر غير مقول اين فصاحته نفصاهم دمي من صباحتي تي كنمم غولير وكيف لهجته نكلا وخم من بهجتي نكلا وخم دمك من بهجتي تي تارم مني ملاج كو تورم فك من تورو انتريس بوما دما بوغا خم رك كنم غولير غي نوم ديف اك فصاغي بوجي غنا فور فصاله غنا ديفم رافت لا غنا ديف ni muy waxee moo gën a taaroom wala boo yaramam moo gën a taaroo xam dama bëgg a xam daal fasaaxam xale bi ak nan lay tuddee xale bi mel ni bàyyi ja rek doomi abu zeydil do wa shiblu fil maxbari mislul asad gaynde ci nattu moo gaynde benn rek xam nga wax lu bëri ne la doomu sëriñ taxul nekk sëriñ waaye mooy bu awdi yoonu bàyyi waaye bu awee yoonu bàyyi ja rek bàyyi la boobe yoonu bàyyi jàng bàyyi zuriyatum baadaha min baadin ci alxuraan lañ koy jàng njaboot goo xam ne ñenn ñi ci ñenn lañ jógee hmm? Hmm. moo tax doomu kilifa jar naa xormaat hmm. su xawee yoonu bàyyi ja dina xeggut ci maqaamu bàyyi boo ko boo ko weddee rek na nga nekk moromam wax ma moromam ci àdd ci xam-xam ci wilaayatu ci mbaax nga xool mayam ak sa may mm-hmm. duñ jegee sax mm-hmm. kama baynal mashriq mashriqi wal maghrib mm-hmm. te pourtant ëppul la xam-xam ëppul la mbaax ëppul la wilaayatu waaye moo la ëpp daraja ci nit ñi noonu la ëppee daraja ci yàlla xam nga lu ko waral yàlla du ko yéegee ci maqaama baayam kon doomu sëriñ am na am na njëriñ waaye bu góorgóorloo yaa ngi dégg lu ma xoolal li ma la wax nii rek bi ay ni xel bi tara mm-hmm. boo xoolee sa bëti xool da gis man ngaa gis doomu kilifa goo xam nii mm-hmm. amaana yaa ko xam-xam tuuti sax mm-hmm. waaye gaa moom mu ngi góorgóorlu hmm? ëpp ëppul la dara dara dara waaye mu la ëpp dara ja ko ko may du baayam de yàllaa ko yéegi ci ma xaama baayam kon doomu kilifa yi dañ góorgóorlu waaye nag yàlla bu la mayee bu ci boole rëy bul def kibru dangay ngay sant yàlla ci may googu yàlla may la nga xool mbindeef yi ni sëriñ su mag ki doon xoolee mbindeef yi mhm. ndeysaan ñoom ngay dégg ñu ne amut ku ma ëpp yërmande ci jaamu yàlla yi mhm. loolu ku baax rek koy wax mhm. wal baidu kaman dana wala kama dana ku sore ku jege ñoo yem ci man dëgg-dëgg ku baax rek moo wax loolu su ko defee noonu la jaam war a delloo yàlla njukkal su ko defee rek kii nag doomu Abu Zayd la moo tax ni la mel ni baaji la mel ba ko waaji laajee noo tudd falam yantiq tuddut bi xulwatin ci lu neex wala muratin du caageen lu naqari mu ne tekk panaa la panaa la <laughs> moog bàyyi ma ko waxut dara wala faaxa tuddut foofu hatta ibnu amatin tudd doomi jaam mm. jéebéer wala xuratin du caageen doomi gorsu jigéen mm. waxut nii doomi jaam di waxee waxut nii doomi gor di waxee maanaam waxut wax ju rafet waxut wax ju ñaaw doomi gor kee xanaa wax ju rafet lay wax doomi jaam na wax ju ñaaw lay wax ndax dafay ñàkk eh, kersa waaye moom waxut dara fa darabtu ma sadd anu ci moom safaan ak wàll wala ma dëddu anu ci moom safaan ak wàll mm. maanaam moon ko gannaaw mm. xam nga nit boo ko wanee gannaaw nag da nga tourné sa lex bi ci moom loolu mooy moon ko gannaaw mm-hmm. wa qultu ma wax loo ñeen ko xub xan ak bon mm-hmm. li ay yi ka ñeel na sa lottu gi ci wax mm-hmm. wa suq xan ak sori li ay yi ka ñeel na sa lottu gi ma ko cëm yow nekk ni nga rafetee mën a wax de fasaawoo <laughs> fa xaara mu daal di dugg xuur fi dex ci ree maanaam mu ree ba <laughs> jeexal reetaan <laughs> moom noonu la xale bi def maanaam kii ab xuur la nga ne reena ba dugg ci xuur wa nga naa mu ree bu baax rek bu an jëda mu yëg dongo ci gàttal bu doon kii maanaam jot reena bu baax a baax daal mel ni koo xam ne dafa dugg xuur wàcc ci dongo barab yi dongo rek fi am lépp lu ree xam rek def na ko dafa ree ba jeexal ree su ma an xada topp mu yëngal rasoo bopp ba ilee jëm ci man wa an shadda mu sadd bay da xam ne doomi abu zeyd jërë wala mu daal di yëngal bopp ba nag <laughs> دال لي سد سد وي نان يا من تلهب غيظه إذ لم أبح بسمي له ما هكذا ما ينسف إن كان لا يرضيك إلا كشفه فأزغ له أنا يوسف أنا يوسف ولقد كشفت لك الغتاء فإن تكن فاتنا عرفت وما إخالك تعرف <laughs> ديسان <laughs> ني ني ني جنب يا من تلهب يوم يا خمن تكر غيظه مرم إذ لم أبو حجم لا بين خمن تدوم باسم سما تور لا ونيالكو ما هكذا دوملني من ينصف كماندو دي كماندو دوملني يا ودي وهم سما تور رنگ مر إن كان بناك لا يردك دولا غرم نو إلا كشفه لمي موني لتروي فأسيق قرول الله نيالكو دغل بباخ أنا من يوسف ما يوسف أنا من يوسف ما يوسف نبو أنا من غرلاري dañ may jaay waaye du ma jaam gor la mhm. comme Yuusufa rek waxu ko sama tur mooy Yuusufa de man maa Yuusuf maanaam gor la wala xad kashaftu wuññi naa la ka ñeelaal xitaa muuraay ga mhm. fa in takun boo nekkee fàttinan di ko xelu mhm. arafta di nga xam li ma bëgg a wax waaye wa maa i xaalu ko njortuum wala ngay xam waaye yaakaaru nga ne nga de <laughs> xam nga kon bi dégal seen responsabilité wax na man maa ngi Yuusufa ñoo yem mbokk yi jël ko jaay ko te xam ngeen ne góor la mm-hmm. man it góor laa jaay ma daganul mm-hmm. ah mais xaaris déggul rek xaala mu ne fa sarra mu daal ñori at bi mm-hmm. sama mer tey mu dee de bi yi ci woyam ya wastaba mu dal di jàpp lubbi sama xol bi sixri yi ca woyam wu mel ni njabar xataa sudixtu bañ gëlëm loo ma xani ci hóorlu mu ne sama mer bi dañ nag ndax way wu rafet wa occupé na sama xel yëpp ndax waxam ju mel njabar tax na man jéemuma vérifier sax ndax kii góor la am jaam la ndax bëgg koo gópp rek ma gaaw rek jënd woon siitu ñu fàttaloo ma xisata yuusufa histoire yuusuf ak siddiq kay dëgg man dem naa ba fàtte histoire yuusuf sax ndax bëgg قلب رك ولم يكن كل ين مهمون بنيته إلا مساومة مولاه لما وخالك برمم فيه كمام لما يتيرون دال ما وخالك برمم رك نقول الجامع واستطلاع تلع الثمن أكفين له دق دق نجق أنا لا واجي نما أبو زيد وقت نمتول رك نهار لك جاي li uwaffiyahu pour ma matal ko wa kuntu nekkoon naa axsibu du njort andoo ne moom sa yanum zuru dana xool chas daran ci rokk ilay jëm si ma maanaam daf may rokk di ma xool bëti ku ma jéppi ndax maa ngi jënd xale bi mu gën a bëgg wa yox lii muy seeral asimata xayma ga ma yaakaar ne dafa ma koy jaayee lu bëri xale yi ci man waaye fa ma xallaqa géewut maanaam warut ilaa xay so xallaqtu fa ma géew xallaqa taayiru mooy ma ngay wër ab barab maanaam moom ko lu seer abou Zar lu yomb la jël lam soxlaam la jël rek xam na ne aaji daf koy dóor daf koy nax rek wala talaqa ajuwut bi ci nga xam ne intalaqtu ajuna naa ci mom nima ma yaakaar noonu lay seerle seerle wu ko bal li fi nek xaala wax mo abou Abu Zar ne innal gulaama naka jam iza nazura bu newe sama nuhu njeg wa khaffat mu oyef مؤنه أي تشونام تبرك بركة لنبيك من مولاه برمو تيكم مم دفع دفع دفع دفع خلب بركة والتحف ورنا عليك مم هواه بقكو دايتا مغنكو بقن لك سونوتي وإنينا كمان لأوسرو danaa gëlale hmm. taxbiba haada algulaami hmm. bëggloo bi la xale ilayka jëm ci yow hmm. bi an u xafifa ci may oyofal sama nuhu njëgg alayka si sa kaw li ma bëgg mooy nga bëgg xale bi kon naa oyofal njëgg fa zin na nga peese mi atay dirhami ñaar téeméeri dërëm in siita bu la neexee washkur nga sant lii ñel ma maa xayita feeg yaa ngi dund jox ma ñaar téeméeri dërëm rek da nga sant ma xamal ne defal naa la xéwal gu rëy de fekk yaa ngi dund nag ma gërëm <laughs> fa naqattuhu ma teewal ko ko al mablaga alal ja fil xaale si sensé mablag mooy ñaar téeméeri dërëm yi rek kama yun xatnu comme ni ñuy teewalee fi raxiis yi ci aji yomb alxalaali ji aji dagan comme kuy jënd lu yomb te dagan ma gaaw rek jox walam yaxtur toqul lii ñeel ma bi baalin ci xel hmm. jëlal léeb bii nag nga teg ko ci sa dund dana la jëriñ lu bari mooy tokkutoon sama xel ne am na kulla murxasin naka lépp ñu yombal xaalin aji seer la gis nga lii boo ko bàyyi xel sa dund dana la jëriñ lu bari mu ne xaw ma woon ne lu yomb lu ne lu seer la waaye lu yomb lu ne lu seer la soo bëggee dugg ci lu yomb hmm. da nga dem ba ñàkk loo xam ne ba ñoon cee dugg sax moo ko gën yow del def lu nekk lam laaj coono ba mu laaj def ko ci defar bu baax noppalu amaa booy bëgg lu yomb si perte rek ngay dëkk ak ñàkk rek mën ngaa dem mu yàqal la sa lépp damay jënd ma portable laa jënd ah portable dix mille am na de nga jënd ko mu yàqu nga jëndaat balaa yàgg mu yàquwaat nga jëndaat balaa yàgg mu yàquwaat yow si ñaari at def nga lu si portable ma mat cent mil hmm. boo jëndoon benn portable cent vingt cinq mille mën nga ko téye juróomi at nit mën na laa ndax kaay ma jaay suuf waaw suuf si dégg nga cinquante rek ngay joxe ma jaay la nangam hectare ah, nga jël jëm jël jënd yow fukki kii joxe ab mu dugal si ab cinq cent mille parce que nangam nangam lii dafa yomb nga dugal si cinq mujj perte joxuñ la tous parce que suuf si amul kayit wala baaxut lu ko waral dangaa bëgg lu yem boo jëndoon benn pàkk boo xam ne def nga ci xaalis tuuti mu am kayit yu wóor looloo gënoon a dal xel kaa ma dugal la ci gaal yi joxeel rek mu yóbbu la Espagne nangam nangam nga ne ah, moo gën a yomb passeport ak dugg ci avion yi nangam nangam nga dem far ñàkk sa bakkan dee demit nag doomu aadama bu mu bëgg lu yomb na def lu baax da tabax kër da ngaa jënd feer yi gën a yomb nangam nangam ah xaaral ma naxanteeg waa ji mu installé ma affaire hmm. ba mu ko installé baaxut. Hmm? ndox may senn ci kër ga. Hmm. nga di ci xaalis bu du jeex bis bu nekk ngay defar ak nangam. dal ba baaxut dem ba ci këram mu daanu. <laughs> nga defaat ci xaalis boo xam ne boo ko defaroon bu baax doo def lu noonu. mën na cee rey sa bakkan. lu yomb lu ne dafa seer. del def lu baax yow. bu la nit wooyee ci lu yomb yomb ko bu mu la ci dugal. ndax mën na laa coûter cher. léeb la de. waaye léeb la boo xam ne ku ko teg su dund. mën ngaa bañ a dugg ci erreur. lu yomb daa neex a dugg di. waaye nag mujj ga. falamma taxaqaqat. ba matee. asafqatu njaay ma. wa xaqat tam war. alfurqatu teqalikoo ga. xamalat ci la yool. aynal xulaami ñaari bëtu xale ba. wala humula dami lgamaami yool gu raw mm, sottee koog mm-hmm. ronqañam niir niiram ronqañ istiaara la mm-hmm. ma jàng balaa mooy istiaara dafa abbal niir bi ak ronqañ rek waaye niir amul ronqañ mm-hmm. mu ne bañ demee nag ba njaay mi mat tàqali koo war ci la xale bi commencé tuur ronqañ ronqañ yoo xam ni moo gën a euh, bari sax lii niir wi di sotti ci ndox su ma aqbala mu jublu ala saaxibi ca morom ca àndandooram ba maanaam xale bi jublu ci Abu Zeyr mi ko jaay wa qaala mu ne ko laxaaka llaahu hal misli yubaacu li kay ma tashbaa alkarishu ljiyaacu wa hal fi shariati alinsaafi anni ukallafu xutatan laa tustataacu wa an ubla bi rawcin bacda rawcin wa misli hiina yubla laa yuraacu laxaaka yàlla na la yedd allaahu yàlla hal yu baaw ndax danañ jaay misli ku mel ni man li kay ma tashbaw ngir mu suur alkarisu njaboot aljiyaaw ye way xiif ndax njaboot gu xiif rek war naa tax ngay jaay ku mel ni man wal fi shiraatil insaafi ndax nekk na si yoonu màndu anii na man u kallafu danañ ma togg xuttatan coono boo xam ne laa tustataw kenn attunu ko ndax bokk na ci màndu ngay jël coono bu kenn attanu di ko teg ku ni man mhm. waan ublaa ak ñu nattuma bi rawañ ci tiitaange banda rawañ gannaaw tiitaange ba mhm. misli ta ni man mhm. xiina yublaa buñ ko nattoo ba xam ko laa yu raaw duñ ko tiital ku mel ni man ko xam da koy teral waaye doo ko tiital ndax bokk na ci maanu nag di ma tiital tiitaange gannaaw tiitaange di ma sonal rek amma jarab tani xanaa nattoo ma فخبرت خم مني تمن نصائح لا يبير يقمن لم يمازجها جخصو تقموم خداون أقوار قنا نتوما جسنا من دمالي لا يبير سما وح سما جف لا يبير يقمن هم تقبن وار لا نيت دنا لا يبير فيك وارن كبير لا لا مو فين وعالم مم نينا مم مصدف وكم أرسلتني يا جنب ومفوق له maanaam boo ma préparé sharakan may fiit li saydin ñeel rëbb fa uttuma dellu wa fii xabaa ili te nekk samay fiit as sibaawu ndog manti ya ndog nga maa def may fiit pour li ngay rëbb ba may ñëw andil la andil la lu bari andil la ay ay kuy yu bëri lu jafe andi daal <coughs> maanaam yàgg naa laa fiital andil la yàgg naa laa doxal ay ay mbir mm-hmm. naxal la ay nit andil la ba léegi ci fiit gi la nekk rek moom boo xoolee ñoom wax nañ seen bopp de yàgg nga maa samp may fiit mm. ba may dellusi si ay ndogment yu bëri laa àndaale mm. maanaam yàgg naa laa naxal nit ñi rek mm. naxal la ku kenn mënu nax wanut te aj nga bii ci man almasaahi ba kuy ya kuy maanaam yu jafe yi fastaqaadan mu ommatu mu taawiatan di aji dëppoo wa kaana nekkoon imtinaawul ak bañ bi haa yàgg ngaa jël kuy jox ma ko kuy yu nangu ñoo topp kenn waaye ba nga ma leen joxee ñu topp sama gannaaw daal di nangu maanaam mbir yu jafe yi yàgg nga ko teg sama gannaaw ma am ci ndam mu mujj yomb lool <coughs> waaye yu karihatin ban guerre lam ubli natt nattuwuñ ma fiihaa ci moom mm-hmm. waxun min ak koom goo xam ne lam yëkkul nekku lii ñeen ma fii ci moom mm-hmm. baawun ak jéego mm-hmm. wala baawun ak teraange rek mën na ko firi mm-hmm. baawun mooy lu toll ak ñaari loxo yi geer boo samp rek wane naa fa sama njàmbaar maanaam musiba boo dugg rek xam naa ceeg yow waaye ban koom nga am te liggéeyuma ca teraanga goo am rek sama loxoom ci biir nga xëy xëy di ma jaay wama abdat feeñalul lii ñeel ma ala yaamu fan yi mm-hmm. jur man ak tooñ mm-hmm. fa yukshafu ñuy wuññi fii mus alqinaawu musóor ga wala muuraay ga fii musaaramati ci doganteeg man mm-hmm. nee na jamono mosu wane tooñ gi ma la tooñ maanaam mosuma laa tooñ ba nga dog nga xam ne dogante bu doon sama diggante dafa am kiiraay te wuññi nga kiiraay ma laa tooñ ba ngay xëy xëy di ma dog walam taasur yéroo maanaam gisoo bi hamdillahi ànd ak sant yàlla min ci man ala aybin ci ayib yu kattamu boobu danañ ko nëbbu aw yu zaaxu wala di ko siiwal amoo ayib goomu mën a génneel amoo ayib goomu mën a nëbbal maa ngi sant yàlla ci loolu nag ndax dëgg-dëgg bu yàlla feeñalu ci ayib ci yàlla la waaye du sa mbaax kon lu tax nga di ma dog te gisoo ci man benn ayib fa an naa saaxa naka lay daganee mm. indaka fa yow nabdu ahdi sànni sama kóllëre na ba nabazat comme num sànnee mm-hmm. asannaahu jigéen ju xarale ja mm-hmm. jigéen ju ñaw ja mm-hmm. buraayataha yettitam yettitam la ngay xoosee ca der ba wala big ba la nga cee xoos wala daal booy liggéey daal la ngay sànni loolu mooy yettit mu ne lu tax nga may ngay sànni sama kóllëre comme ni nga xamee ne liggéeykat bi noonu lay sànnee yettitam maanaam fasante gi ma fasante kóllëre pour ñu nekk lu tax nga di ko bàyyi di ma jaay wali ma sama xat lu tax mu tabe xaru naka sa bakkan bimtihaani ci toroxal ma waan ushraa ñu di ma jaay kama yushraa comme ni ñu jaayee almataamu bagage lu tax nga di ma toroxal di ma jaay mel ni bagage ndeysaan waxal laa sunta lu tax nga wëttu xer di sama der xanhu ci toroxtaane googu saw nii comme nu ma wëttee waxtaan yow ma jëdda bis ba binaa ci ñun alwadaawu tàggatoo keroog ba tàggatoo dëggoo suñu diggante maanaam keroog ba tey ba ñuy tàqalikoo nii ni ma wëttee sa lépp loo ma soo wax ni ma ko gàddee lu tee nga gàdde sama der ba dooma toroxal waxulta nga wax li man yu saawimu li man yu saawimu ñeel kay waxaale fii ci man ne haada kii sakaabi comme sakaab la fama yu aaru duñ ko abal able wala yu baaxu duñ ko jaay mm-hmm. dama am benn buur bu gisoon waa am fas fas bi sakkaab lañ ko tuddee sakkaab mu jóge si in sakkabal maaw ndox mi sotteeku na maanaam fas bi dafa gaaw mel ndox mi sotteeku ñu tuddee ko sakkaab sakkaab bi nag dañ koy binaan ci kasal buur bi bëgg bëgg bëgg a jënd sakkaab googu waa ji sa saddal ko benn bayt ne ko abayta laana inna sakaabi ilqun nafisun laa yuaaru wala yubaaxu abayta laana mooy dañ ko daan nuyoo buur bañ nga rëbb sakaab ilqun ndaj xol la ci xol la nekk nafisun ku seer la mm-hmm. laa yuaaru duñ ko able wala yu baax ko jaay mm-hmm. mu yow lu tee bay nit di di ma waxaale pour jënd ma mm-hmm. nga ne ko kii comme sakaab la duñ ko able duñ ko jaay fa ma ana man duna zaaka tir fi may xees boobule naaru góor de laakin waaye nag tibaaxu ka say jikko fawqahaa nekk na ci kawam tilka tibaaxu yooyu la jikko xasu rëy ngi mu ne man gënumaa suufe naaru góor góog de maa gën naaru góor gu foofu waaye borom naaru góor bi de moo la gën jikko moom nit xam na am naaru góor rek bañ koo jaay ndax fonk ko buur bi gën a mag soxla ko jaayit ko ko yow nga am lu gën naaru góor foofu di ko jaay xam nga ne borom naaru góor baa la gën jikko ala an nii waaye ne man nag sa unshidu danaa sadd inda bayi ci jamono buñ may jaay ne adaawu nii sànq nañ ma wa iya fatan bu ci waxambaane adaawu lañ sànq maanaam joxuñ ma sama gëdd dëgg-dëgg joxuñ ma sama gëdd loolu lay firi adaaw ni sànq nañ ma mooy joxuñ ma sama gëdd waaye fatan adaaw dafay feddal ne dëgg dëgg daal ndaw lu baax nga ni loo xam ni kenn jox ko gëdd mu ne buñ may jaay loolu rek laay wax xaala mu ne falamaa waa ba mokkale a cheikhu sëriñ bi abiyaatuhu ay baytam waa qala mu xelu munaaxaatuhu ay waxam munaaxa mooy di neexal xale di ko wax wax yoo xam ne dana tax xale bi kontaan tanafasa ci la nooyi moom magma ma asooda ajjat ga nooy ca kaw wa bakaa mu jooy xatta ab kaa ba mu jooyloo alboada way soriya su ma xaala mu wax lii ñeel ma ne innii man mu wax xaaris ne ko innii naka man uxillu danaa wàccee haada alxulaama bi rek xale waladi wàcc waaye sama doom wala umayisuhu du ma ko xàmmee xan aflaasi kabidi si dogitu sama res xale bi boo dogoon sama res xàmmewuma koo xale bi maanaam sama dogitu res la سرس ما كان قلنا قريفون كو أفلاس دي مو فلزة نعم. فلزة تو مو يدوغيت خالبي كم سمو دوم لا دارا وتلو كوك سمو دومي دومي نقرا بلنا ننتبه دوغيت رس أم لواجه وعنا وإنما أولادنا وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض سين دومي نين ملاقين موي سيني رس يدوخ سيكا وصوف نقول لك واحد وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض نعم. سني دوم مملني سني رس في دوختي كوسو مرة يوم دوم لين كنا تري دوغي ترس ولو لا خلو مراحي سلدو قبيتك سمكر وخبو مصباحي أكفاك سما لامب أنا مسلون ويتك سما كر أو معرل سما درجة فاي lamma daraja du génn moom xale bi an ushi wali sama tàgg maanaam du génn sama nekk du génn sama kër daal ilaa an yu cheya ba ba muy gunge naax si sama tàdd fekk ba muy dee du génn waxat raay te gis nga na bii ci moom min lawaatil bay nii ci takk ci tàkk ak ci lakk ak tàqalikoo tàqalikoo nu muy lakkee xolom mm-hmm. wala mu uminu jullit mm-hmm. xëy nun ku yomb jikko lay doon lay nun ku nooy lay doon jullit foo ko fekk dafay neex a jëflante daal mm. te parce que du bëri affaire du compliqué du bëri affaire mm-hmm. nee na jullit noonu la war a mel mm-hmm. nit ñi nag moom boo mm-hmm. ku ñëw rek danaa xaaral ma jéem koo nax toog ci boppam bi ku jullit du gàtt xel waaye dafay nooy jikko waaye yonent daan na wax ne ne jullit kenn du ko màtt ci benn pax ñaari yoon boo ko naxee benn yoon dootoo ko naxati bu mukk waaye nag naxagoo ko daal moom dafay rafet njort ci yow. Hmm. mu ne ko jullit noonu la war a mel faxal la ka ndax ñeel na la hmm. fii tasliyati qalbihi nga miisloo xolam hmm. wa tasliyati karbihi nga wuññi njàqareem bi an tuahidani nga daalanteg man alal iqaalati ci xàcc fii ci moom ma tastaqaltu saa yu ma bëggee xàcc <coughs> ndax man ngaa fasanteeg man kóllëre ngir rek dalal xolu xale bi dindi njàqareem ne saa yu ma neexee mën naa ñëw xàcc yàq njaay mi ñu fasante kolëre ci loolu waan laa tas tasqilan yi te bul diisale laan teg man ma diisale bu ma ñëwee di wax wax ju bëri yow moom bu la nga nooyal fa fil asaari nekk na si hadis yi al muntaqaat yi dañ tànn mm. al marwiya yañ nettali ani siqaati jëlee ci ñu wóor ña mm. bokk na ci hadis yi man ku xàccil naa di man aji rëcc bayaatuhu njaayam aqaala xàccil na allahu yàlla asartuhu fakasalo bu ngeen jaayantee nit ki rëccu ne man daal génn naa ci nga delloo ko àllam yow sa jafe-jafe yi yi nga defoon ba mu war daa dugal safara bàkkaar yooyu yàlla dana la ko jéggal yow itam <coughs> wax na alxaalisu naa maam fa waatuhu ma dik وعدا ديغا غو خا مني ابرزو غينانوكو الحياة كيرتا وفي القلب واي نيك نا سي قلب اشياء يينين مبير مني ما ديكو ري واي نك فاسيرو موكو ديف واي آه، وزير بو خاسي ديك جيهان فسدنا مودال دي ساكو جيغن لو حين اذن جمان بوب الغلام قلب اليه جمش موم ابو زير قتي خلبي مو نيو وقبل مفون ما بين عينيه لنك ديغنت نياري بريا وانشد مسد ودمو ترون قنبا يرفض من يتقلكو من جفنه شي نياري يوم بني نخي داني ملني كو نيك سي دغ مو جيغالو خالي بي نك كوماسي دي واي رونكا جاغي يعني تورو دي تقلكو نغو خفت فدتك النفس ما تلاقي من برهاء الود والاشفاق فما تطول مدة الفراق ولا تني ركائب التلاقي بحسن عون القادر الخلاق خفت ويا فلس سنجاقر فدت كجدنا لنفسي سمو بكان خفت ويا فلس فدت كجدنا لنفس النفس سما بكن لا ويا فل ما تلاقي لعين دجاج من برحاء الوجه ستتك cofeel guy lakk xol wala ishfaaq ak cofeel gi nekk ci yow mhm. ak tiit gi nekk ci yow mhm. la ci wàññi ko mhm. fa du yàgg mukk muddatul firaaqi di rek tàqalikoo ba suñ tàqalikoo du yàgg wala tanii du doye di rakaibu gawari daje balaa yàgg léegi ñu daje gawar mooy géem war rek بحسن عون القادر شرفتك نملك أجاتن الخلاق كي بنداكون مودي الله شكاتنا يا الله بلا يا غني رجع ثم قال توف مالو نيلكو نكو استودعك ما لي دينك من كان خن هو مم نيام باخنا المولى بروم ما لي دينك يا الله مي گن سي بروم وشمر موك زيله بيچم ولا مدد موك يربا دال لي وني گناو فلبس مسح الغلام قلبا في زفين في اجك اجد ajjat mooy di jooy rek mm-hmm. dégg nga mm-hmm. jooy gu ànd ak daal mm-hmm. waaw yi ak yuuxu yëkkat mooy nooy gi di génn rey sama yàqatan diir ba mu dogee mm. ma daa miilin toll ni miil miil mooy maddul basar boo xoolee sa bët fa mu yem loolu mooy miil xale bi ba mu doxee lu toll noonu rek mu commencé di ajjat di yuuxu rek xaaris yaakaar ne li xale bi li muy jooy mooy tàqalikoo gi mu tàqalikoo soppeem boobu di aboseli wala mastapha ba mu xiqee wa kaf kafa mu fekk mhm. damoo ronqañam almuhraqa ba da tuur xaala mhm. daf ne mhm. attadri nag xam nga li ma awaltu lu tax ma yuuxu wa ala ma awaltu ak lan laa jublu maanaam lan laa fas yéene def ndax xam nga lu tax ma yuuxu ak lu ma fas yéene nii lu ma dogu xaalis na fa qultu ma ne ko azunu damaa njott firaaqa mawlaaka تقلقوا صبرم هو الذي مليق أبكاك جويلون لما يكن لنا تقلقوا سا كلام مومن موتا جوي فقال قال ابنك إنك إنك ولا في واد يانكي قور وأنا من في واد من كبرين قور ولا كم نيات الدستانس بين المريد المونيك سيدي كنت أجي بق ومراد أكون بق مريد مراد بين مراد مويكن بق مريد مويك بق أنا من بين Mm-hmm. yow yaa bëgg mais kii moom lañ bëgg mm-hmm. moo tax jaam dafay ñaan yàlla nekk muraad bu ko mm-hmm. yàlla bëgg yàlla moom bu la xasee bëgg rek moom jeex na dafay nekk waaye boo bëggee yàlla la mën ngaa jaam yàlla boo bëggee doo yàlla doo daaw bunt yi moo tax alquran ne yajtabi ilayhi man yashaa kooku muraad la yàlla mooy xool ku ko neex mu tànn ko sans dara moom tànnewu ko dara de moom neex na yàlla rek mm-hmm. lu neex yàlla na moom sans condition la mm-hmm. ndax yàlla amul condition waaye way hadi ilayhi man yunib kooku murid la mm-hmm. kuy góorgóorlu di jaamu yàlla di sonn yàlla dana ko jubal mu jëm ci moom waaye kooku yunib mooy njëkk kee moom dara ma ne shaawa rek machiatu laa rek ci la ko yàlla tànne yàlla nañu yàlla may ittibaawu boobu nga xam ne bi machiati yi faqat mooy jaamu yàlla topp dara te bi ilayhi moo tax muxlisiina foo ko fekk mooy murid dina ñu bëgg yàlla waaye muxlasiina nag mooy ñu yàlla bëgg ñu yàlla bëgg ñoom yàlla leen sellal rek yàlla leen bëgg moo tax booy ñaan yàlla di wajaan laa mi ne baadikal muxlasiina moo gën a kawe muxlisiina ah su maan sara toog mu sadd waay xale bi sadd ne lam abki wallahi ala ilfi nazax wala ala fawti naimin wa farax lam abki jooyu ma wallahi maa ngi gën ci ala ilfin ci xarit boo xam ne nazax sori na ولا على فوت نعيم من دجاجن فاتق قول وفرهن انبت نقول لما نياك قول ولا ما نياك انبت وانما مدفوع اجفا اجفا وانما مدمع اجفاني نكرون قنيو سماي نغوبت صباح صوت صوتيكونا على غبيين تي اجرير لحظه غنديكم مانام بتم هنا تمح جمن بوم سينيني ولا جمن بوم يكتي بتم يكتي بتم موي سينه نعم. من لي جوي موي دوف بو خامني séeréer mu gumbaloo na ko mhm. séeréer xam na tax na gisatu mhm. gis ma rek séeréer jàpp ko mhm. mu jënd ma ba gisut warratahu dugal na ko ci guuta wala dugal na ko ci xalkaande aw qaawu fi wartatin warta mooy lépp luy alage rek wala lépp loo xam ni boo ci duggee génn ci dana jafe mooy fiit daal loolu mooy warta warratahu mooy dugal na ko ci musiba boo xam ni maanaam fiit na ko ba jàpp ko mm. defal na ko fax ab pax kàmm gum ko gasal dugg na ci léegi nag génn ci jafe la ba mooy warratahu mm. warratahu mm. dugal na ko ci guuta wala dugal na ko ci musiba wala dugal na ko ci alkaande hatta taanna ba mu sonn mu gàcce mu gàccewu wa dayaa mu sànq almanquushata dërëm yañ rëdd albiida yëre aji alwadax yëre aji mu ne séenéen googu moo ko dugal ci musiba mu jëlee ci coona gàccewu ci ñàkk ci xaalisam bu leer nañu boobu woy ka toskare ñeel na la wala boog woy ka yërëm naa la amma naa jët ka xanaa diyaari wut ak yow xaatiikal mulax yooyu la kaddu yu xorom bi an na nii ne man xurun gor laa wa bàyyi jaay ma lam yebox daganut kanaa waxuma la woon sama kaddu yu rafet yooyu hmm. ne la man غور لا ورن ما جاء كان اذ كان في يوسف في يوسف معنى معنى غو خن قد وضح ليرنا يوسف موم نيب خم اسوارم تا وخنا لا من ما يوسف من كاي كون خم غني من دوما جام نغي ديما جين حارس ني خايم ديف واحد اي كف رك خايم ني فتمثلت ما مثال ما قاله وخم جا في مرآة wa maaridil mulaaxibi ak gaaruwaayu aji fo gaarluwaayu aji fo ma jàpp ne kii daal kuy mbalag la nii di ma di ma caaxaane rek fa tasallaba mu daal di samp tasallubal muxiqi comme sampu aji nekk ci dëgg tasallaba mooy dëgër ci li mu wax wa tabara am mu dañtalu min tiinati riq ci ban ak njaam ban ak jaam mu ne moom du jaam fa jul naa ñu wëndeelu fii mu xaasamatin ci xuloo goo xam ne itte sanat jokk na bi mu laakamatin ci kurfañante xuloo nañ ba commencé commencé xeex wa afdat mu daal di yegg ilaa muhaakamatin ci attewante maanaam ñu dem ci attekat bi falamma aw dax naa bañ leeralee lil qaadi ñeel attekat ba suurata melokaan ba wa talaw naa ñu jàngaale ci moom asurata saar wa maanaam ñu wax histoire bi qaala ci la wax ne alaa yëgal inna man anzara naka kala waar mm. faqad anzara dog na ngant ki mm-hmm. la waar kan am na ngant mm-hmm. ومن حذر كل مويترو كمن بشر مملني كل بغل كل بغل ومن بصر كل وان دغ دغ ميرمي فما قصر غاتنوت وان في ما شرحتما تما هو نكنا سي لاغي ليرال لا دليل تكتل على ان هذا الغلام نقل بي قد نبهك يينلا فما رويت تجاجو منم تاريتو قال مو وخنا لي خيو ونسى لا يبيرنا لك fama waaye te te mokkaloo ko mm-hmm. xale bi wax na li xew yaa ko yaa watuur rek de mm-hmm. fastur saafara suturaalal fastur suturaalal daa ab balaxi ka jàngoroy sa gàtt xel mm-hmm. balahu mooy koo xam ne xol bi dara nekku si waaye wala àddina xamu si dara moom la xadis bi wax ne aksaru ahli jannati al bulhu ñu ëpp ci ñooñ ñooñ waa aljana mooy ñi nga xam ne amuñ xam-xam ci wàllu àddina nitu yàlla yi ci bëri amuñ expérience ci àdduna mais am na ñoo xam ne ñaari lañ boole nag mm-hmm. ab la ak balhaaw jamono bi bulhun mm-hmm. am na ñoo xam ne ñoo gën a xam àdduna ñëpp waaye ñoo gën a baax ñëpp mais mm-hmm. ñu bëri ci waa aljana li nga xam ci àdduna bëriwul kon nëbbal jàngoro sa gàtti xel gi waxtumuhu nga nëbb ko walum yeddal nafsaka sa bopp wala talumuhu bul yedd xale bi moytul min ixtiraaqihi ci teeko wattamahi ak seenen fi istirqaqi ci jamlo ko mm-hmm. moytul di jema jamlo xale bi mm-hmm. fay nu nak mom hurul adimi gorok der la manam mm-hmm. der gu rax la غير معرض نكو كوني كوني غارال مانام كوني تخوال لي تقويم غير خيمه نان نياتا لاي جار دو جام دي وقد كان نيكون ابو بايم احضروا ديكو تيوال ام تي ديمو قبل افول الشمس نيكو soo ak jant ba démb la ko bàyyi man di fii balaa jant bi soo muy Abu Zeydi waxtaan fa mu reconnaître a mu nangu bi andoona moom faron banqaasam la allazi gi nga xam ne anshaaw jur na ko démb la ko fi bàyyam andi ne doomam la moo ko jur balaa muy teg plan bi dem na ci àttekat bi ba pare waan la liy mbir mbir laa waari sa biir aji doon na loxo di ko ñeel si waaw ku moom mm. bàyyam ne xale bi rek ko war a doon فقلت موخ للقاضي نيلا تكريم نكو او تعرف من احنا خم اباه بايم اخزاه يال نكو غاتشال لا يال فقال تكريم نكو وهل يجهل نحن دنا ريري ابو زيد ابو زيد الذي ما خمن جرحه غان غانم جبار نين لا مانام كوم غاني دي بيسر وين كل قاد انت اتكت بنه لو نيل نكو اخبار اي خبار واخبار اك اي سولو اني لا تي اتكت بنه waaye article mu ne jot na ci mu information yooyu fa taxaraqtu ma lakk xii na isin jamono boobu waxaw xaltu waxaw xam naa waxaw xaltu la de xaw xala mooy wax na laa xawla wala quwata illa billah dégg nga waxaw xaltu ma wax laa xawla wala quwata illa billah dégg nga waa faqtu ma qiqi ah ma dañ ci mer ma. Mm-hmm. walakin waaye nag faata jamono ba mu rabee al waxtu waxtu wa. xiq mm-hmm. naa maanaam mujj naa yeewu kat waaye fekk na yeewu paase la. Mm-hmm. waaye xantu ma wóolu an na lisaamuhu ne maskan boobu. kaana nekkoon na charaka makiidihi di fiiteeg makiidati di fiiteeg pexem ma. wa bayta xasidatihi mooy baytu xasidaam bayta xasida mooy xasida bi gën a rafet ci xasida yi maanaam li tax mu mën ma war dëgg-dëgg mooy mask ba boobu doon waram yi xasida la nga ne mask ba mooy baytu xasida fa nakasa mu ñett mu ñett tar fii sama bët maa laqitu la ma dajeeg maanaam la ma dajeeg tax na ma sëgg rus daal waalaytu ma gëñ an na lii mbir tamit laa o amila du ma jëflanteeg mu les sa mën aji masque wu maa baqitu fekk maa ngi des ku sol masque moom dootuma jëflanteeg moom dara wala ma azal dañu ma ata awwahu di méttirlu li xusri safkat yi ngir perte ak sama njaay ma wafti daani ak sama gàcce wu bay na rufqat diggante samay àndandoor mm-hmm. maa ngi méttar lu ngir perte gi ma perte mm-hmm. ak gàcce gi ma dal fa qaala mu wax lii ñoom alqaadi mm-hmm. mu gisee imtiaad imtiaad yi sama tàngoor ak sama lakk àttekat bi ba mu gisee ne may méttar lu ak sama xol bu lakk bi من ما هذا يبي ما ذهب دمت من مالك سأل الماء وعزك لا لوار على الجوخ من الفلاوار كوك سانكوت لين الجوخ جانجل لا ولا أجر ما تونيت إليك دم شيء ومن أي قذك كلاية كلاية بخم بتان خم فيني تكستانك كوك تونيت لا تفهم من إكسبرينس فتايز نعوارو بما نابك تلا جدنا لا wakaatim na nga nëbbanteeg asaabaka say analoor mm-hmm. maa asaabaka la la jot mm-hmm. fexeel bu bu kenn xam li la jot mm-hmm. wa tazakar fàttalikul abadan ba faw maa dahamaka la la muur si njàqare li taqiya ngir nga fekk dégg nga zikra euh, fàttaliku daraahimaka say dërëm maanaam musiba gi gàtt xel gi la dal ni daal dee ko fàttaliku di bàyyi xel bu lu mel nii du la darati ngir doo taradi sa alal ja wata xalaq na nga jikkoo bi xulixi ma ne tuliya ci jikkooy kuñ natt fa sabara mu muñ wa tajalal mu feeñ la ñeel ko alxebaru xalam ya mu xalamu xalam mooy résultat wu xelaat na nga na nga jàngal nañ la leçon na nga concentré wu ci fexe bi ba dootuñ la naxati rek ta nga ba alal ji mu dem ndax alal ji leçon la rek bu la jàngal qaala woon alxaaris ibn hammaam fa waddaatuhu ma tàgg ko ma tàggu àttekat ba laa bi seen daaji sol sawbal xajale yérey kersa wala xasani ak njàqare saaxiban daaji diri zay sama mbicc zay lay ni kon ñaari mbicc yaa benn bi moom euh, naxe la wala xabani beneen bi gàtt xel la dégg mm-hmm. nu mooy ñu nax la ci njaay mm-hmm. raban mooy dof mm-hmm. mu ne maa ngi dem ànd ak ndax nañ ma maa ngi ànd ak kii xel mu gàtt mm-hmm. wane waytu ma yéene mm-hmm. ma yéene mu kaasifatu abi mi wuññu wante ak abu zeyd bil xajiri ci gàddaay ba musaaramatu ak dogo ak dogonteeg moom yedda dahri diir ak jamono diir ak jamono lay nam ma ne moom fii laa koy bàyyee bay laa yomi diin dootuma nekkateeg moom فجعل توما كماسي أتنك بدي جاد أنزارا هو تأتمبا تدينغريم مامو بيموت أبو زيدرك واتجنب ما يتات أن أراه مجسك بقول توما زكيت أبو زيد إلى أن غشيني بام دكلمة في تاريخ فيون دقيق بقط فحياني منيما تحية الشيخ كم نيوك أجنم أنا ما نعكو mu dajeg man si yoonu xat nii ma comme ku ma lool ku ma bëgg lool fama zittu dolliwu ma ilaa na bastu lu mooy ma ñëkkal sama kanam wama na bastu te tudduma benn kàddu man moo ñàngal kanam nga waxuma dara fa qaal mu ne maa baalu ko ana lu la jot samaxta nga <laughs> bi an fi ka sa il fi ka sa xarit lu tax bi sa xarit maanaam ngay réeréeru ni فقلت من أن سيدنا نحن دن لا دن لا فترة أنك نيو احتلت بحنجة وختلت نجهر قال يا فتنة بلا بمترل بحل مهور ما وفعلت دفن وفعلت دك سجف التي جاء قبل فعلت دفن كو فادرة مدال ري ري عند غوليس من نكون غلوات منير لكو bii ci man mutahaziyan di aji yejji di ma mm-hmm. sumaan shada mu daal di sadd way mutalaafiyan di aji dabaatal mm-hmm. yaa man bada minhu sudu dun wa tajahumu mm-hmm. yaa man yow mi nga xam ne bada feeñ na minu ci moom sudu dun gi aji wéetal wa tajahumun ak ñëkk ak kanam waxa daa mu di dunqal malaawi man ay yeddaange xam nga dañ laan def seen fett yi donc maanaam mu ngi préparé ay wax yoo xam ne dana ma ci yedd min duuni hin na yées na wax yooyu sax al asfumu ay fet wax yooyu jam la fett sax moo ko gën wa wax naan al xuru ndax gor yu baax dañ ko jaay kama yu baax comme ni ñu jaayee al nga dégg nga mëngu mooy fasu ñuul ma ngay wax naan <laughs> moom mu bëgg wax naa ma ndax góor kenn dana ko jaay comme ni ñuy jaayee fas wu ñuul mm. ak sir gàttañ lun fa ma ana den man fii ci moom bi daan di ku ko njëkkee mm. man njëkkee wu ma jaay jaay jaay nit de mm. xoolal rek misla ma tata waxamu comme ni nga ko defee ni nga yaakaar ne maa fi njëkk jaay gor man njëkk ma fee jaay gor de xad baat jaayoon na alasbaatu sët ya xab li njëkk ma yusufan yusuf wom te ñoom hum ñoom sët sët <laughs> yaqub yi hmm. maanaam doomi yaqub yi ah ñoom ñooy asbaat yi bu ñu waxee asbaat mooy doomi lañ ci hmm. namu jaayoon nañ yusuf te ñoom ñëpp ay yonantu lañ hmm. seen daraja wàññeekuwut ah kon manit bu ma jaayee gorte tamit wóoruma ci yedd loolu loolu du wàññi sama daraja ci yàlla xaasa lii wook si mu maa ngi gën billati ci ki nga xam ne billati ci kaaba gi nga xam ne yasri dana rañaan ilayha jëm ci moom المتهم أجد امتهام مولي مكة وتايفين أقوي ور بها تكابغو وهم يوم شون شون نواسي نتخر أي نجب بقلين سهمو نصبكو أي كنم لين ما قمت تخيوما ذاك الموقف ببدا تخواي المخزي بأجي قتال وعندي تنكر فمن درهم أبدرم من عندك لي لبنك ما نجي جنتي كابغي خمني كويدا مكة فلجم أن يور كابغي Mm. seen karaw yi cuxur seen yaram yi soppeeku mm. taxawaay boobu maanaam naxuma la te fekk maa ngi yor dërëm ba ma lay nax fekk na yoruma dërëm fanjour mm. kon sa mbokk wa ku fa fegal am ci moom malaama man yedda ki nga xam ne laa famu du dégg bu ko yedd yedd ko comprendre li xew man damaa loru woon rek su ma xaal toog moo ne amma maasirati waaye sama ngànt moom faqat laaxat leer na waa ma daraahimu ko waaye sa dërëm faqat taxaar alku na jeex na fayin kaan nem nekk ne ixchi raaru ko sa ngëbu min nii ci man hmm. was wi raaru ko ak sa jeng hmm. an walis ma hmm. li farti shafaqati nga ngir jégg dayoog sa ragal ala xubbari nafaqatika li des sa dund lastu nekk moom mi man di bokk ci ñi nga xam ne yàlla sama danañ màtt marateeni ñaari yoon wa yuuti wu ñuy dëggloo ala jamrateeni si ñaari xalu safara bu fekkee nag li tax nga beru ma nii daw ma da nga yaakaar ne danaa la defaat lu mel nii mm. jëlaat li des saalal mm. man du ma màtt ñaari yoon du ma dëggaloo ci xal ñaari yoon mm. wayn kunte nem nekk nga tawayta di lem kac xàkka sag wàll dégg nga di ma dëddu rek waa taxta nga topp su xàkka sa nay tax nga woon ma gannaaw di des tan xisa pour nga xettali maa aliqala aju bi asara kii samay fiit kon fal tab ki na jooy albawaa kii way jooy yàlla aqali nga sa xel bu dee nag tax nga dëddu nii nay mooy li ma xasoon jël ba pare nga naa la ko delloo. Mm. loolu moo tax nga dëdd ma woon ma gannaaw. Mm. mais nag bu yeboo jooy la ndax xam ne amul xel. Mm. ndax man lu ma xas jël rek jeex na. xaaral Haaris ibnu Hammaam fa mu loruloo ma. bi lafzihi ci baatam ba alxaali bi gi aji xor. wa sixri yi ak ga alxaali bi gi aji not. ilaa an ottu ci ma jëm ma dellu. safiyan di aji sellal lahu ñeel ko nekk xaritam daal mm-hmm. waxa fiyan di aji ñeewanti bi ci moom mm-hmm. maanaam di ko teral daal mm-hmm. wa nabastu ma sànni faalatuhu jëfam ja zihriyan ca gannaaw wayn kaana dina nekk na chey an fariyan bu màgg lam ma defit dina lu rëy la mujj naa ko daal ndax kàddum yooyu in uridu ila islam astata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu